mbok wa senegal Assalamu asalaamaaleykum sen bok docteur Mansour Diouf moy dekk pour wax len ni situation bi am Sénégal actuellement ni situation bi garaaw na jéggi na nit ñi hôpital amatul place nit ñaa ngi wër fu place ay ño xamanteni ni coronavirus bi mo len sonal trop trop trop yag nañ len ko wax ba ba léegi gis ngeen may alerté bi ñuy jubli ci tabaski gi wax nañ ba sonn yenn ñi tabaski jaru ko waxoon naa leen bu ñu génnee ci tabaski bi di ngeen gis lu ngeen musul a gis actuellement nii nag li xaw ci hôpitaux yi boobu ba léegi ñu ngi wax li fa xaw dañ leen bëgg a wax mu leer seen bopp dëkk bi place amatul moo xam hôpital la moo xam clinique privée nit ñi gis ngeen da ngay gis nit koo xam ne dafay nekk ci diggante dund ak dee ñu koy indi hôpital du amul place place amatul il faut ngi faut ngeen xam situation bi graw na ni actuellement ni ni ni ni ni ni Sénégal lay waxal wara li ci des moy mbokku journaliste waxal jamono bi xam bu fa jamono ay wax luy il faut ngeen filmer li xew ci hôpitaux yi def ay reportage wan ko doomi aadama yi ñu teg ci seen bët parce que nit ñi actuellement toll nañ fa nga xamante ni ay waxi kese mënul ci ñoom dara boobu ba léegi ngeen may wax deful dara parce que lii lépp gisoon naa ko muy ñëw waxoon naa leen bu ñu jógee ci tabaski gi bu ngeen moytuwul di ngeen gis situation bu ngeen musul gis actuellement nii nag béy woy na mbuus bi ci des mooy autorité yi nañu jël seen responsabilité balaa muy trop tard nañu wut ay moyens de renfort moyens de renfort yi mooy lan armée am na li ñuy wax hôpital militaire de campagne nañ ko installer nu mu gën a gaawee jéem a revenir en renfort parce que suñu mbokk docteur yi nekk ci hôpitaux yi bu ngeen xamul li ñuy dund jamono bii parce que am malaat mu ñëw mënta noyyi manqué oxygène et amoo foo ko teg am place boo ko teg sax amul ñi ngi wax sax man jot naa ay message yu may wax ni sax am na nit ñoo xamante ñi ngi ci hôpital dañ leen gis ñuy tëdd ci couloir yeeg ayu kenn xamul parce que amuñu place lool na bu amee na ngeen fagaru lii ngeen di symptômes yi ngeen di am ci kër yi ñii naan damaa grippe ak affaire grippe amul ci jamono bii booy boo mu leer seen bopp képp ku fi wax waxu grippe xamal ni feebaru Covid moo la jàpp lii dama koy wax sama baat ca kaw képp ku fi am symptôme nga naan ay grippe benn grippe amu fi. nax sa bopp baaxul feebaru Covid moo moo fi am li leen ci musal yàgg naa ko wax dem leen ñaqu ji bu ñaq amee ñaqu ba pare tamit na ngay jël takk sa mask di raxas say loxo di yor sa gel foo toll ba moytu dajaloo yi moytu xew yi yaa ngi dégg génn bu mënta ñàkk fooy dem solo sa masque yor sa gel di raxas say loxo loolu moo la ci muur moo la ci aar ñaqu plus li ñuy wax geste barrière ñaqu bi dafa mel nii nga sol gilet parbal balles gilet pare-balles mooy gilet yooyu nga xamante ne ni boo ko bu ko defee dalay dalay protéger ci balu fetal mais boo solee gile parbal balles ba pare dem fa nga xamante ni nag fa la ñuy dóorante ay bali fetal bu bal perdu ñëwee dal sa bopp rey la yaa tooñ sa bopp da ngay sol sa gilet parbal ba pare fagaru bañ a dem fañ koy dóore loolu mooy da ngay def sa vaccin ba pare dem di continuer sol sa masque di raxas say loxo yaa ngi dégg di bañ a dem ci dajaloo bi bàyyi xew yi bayi len xew yi lillahi wa rasuli vraiment bu ngeen yaakaaree ni ñun li ñuy wax ni ni bobu ba dañoo dañoo dañoo am kay rek di wax yene ngi nax seen bop ñun li gisoon nañ ko muy ñëw alerté nañ ba son wax nañ ba son am fo xam bu fa toy nak ay wax nekatu ci nos journalistes yi dem filmer situation bi am sur le terrain lolu seen liggéey la fait des reportages ngeen won ko nit ñi nit ñi tek seen bët mën fagaru xamni liñ leen di wax ni bu ko defee ku nek jéem rawalé sa bakkan parce que fa lañ toll nii ah, jamono bi fa lañ toll nii ah, buñ len ko waxee buñ len ko waxul la situation là est débordée boy boo mu leer seen bopp nag wax naa kon voilà kon nak mi ngi noonu lu waay lu waay xam nak mi ngi noonu wax nañ leen li ñu wax jóg len bala muy trop tard parce que actuellement ni li nga xamni mo xew ci bir kër yi ak ci hôpitaux yi jéggi dayo baxna baax na jërëjëf yalla na yàlla musal waa Sénégal jërë ngeen jëf mais nak yalla yalla bay sa tool